laa ilaha illallah bur yàlla laa ilaha illallah laa ilaha illallah am bulu jeexee te bëgg am bulu jeexee te bëgg ko laaj mu koy laaj mu ceeg njëriñ ak yokk dimbali dimbali suñu diine lislaam ji nekkoon bokk na ci kàddu yëpp mujj a jokkalanteeg ñun ci discours bi mu def moom Serigne Saliou Mbacké lii lee kàddu la ca yëkkati li ma Serigne Touba jiital ci yéen dama koy ànd ak yéen ci kaw jiital gi mu ma jiital ngeen topp sama ginnaaw bu ma jiitoo naa leen di gestu rekk bu ma leen séenatul ah, taxaw nekk leen bu ma gestoo gisuma leen itam dinaa dëpp dajeek yéen. bu ma dajeek yéen bu ngeen déppee it damay topp ci yéen duñ tàggoo waaye bu ngeen ma jiitalee dara luy yàq diine mbaa muy yàq taalibe mbaa muy yàq àddina duma ko def mooy doxit nag naa leen di gestu rekk bu ma leen séenatu tit nekk leen ku ma liggéey lu yàgg ak siwu leen ma dëpp wutal ci leen bu ma fekkee ngeen dem ma jiital leen topp ci yéen waaye duñ tàggoo mukk li lee kàddu la Serigne Saliou Mbacke mujj a jokkalante ak taalibe yi taalibe yi nga xam ne ni moom jëmm ju sell ji amoon na ci ñoom cofeel ak yërmande joo xam ni nii mu ne su ko nattale lu dul mu am ci jaam ñi Serigne yu Mbacke fees dell ci xoli murit yi waaye itam fees dell ci xoli taalibe yi ak jullit yi ak ñi nga xam ne itam duñu ay jullit jëmm ju sell ji kenn ku nekk am nga loo mën a wax ci moom ci lu la marqué ju ndam sell góogale sant yàlla bu baax a baax sant sëñ bu baax di ñaan suñu Saliou Mbacke suñu boom yokk ay leeram te dolli te dolli ay ngërëm taasuñ ci barkeem ci barkeb dundam gu barkeel gu yàgg googu nga xam ne lépp njëriñ julli ñi lépp njëriñu mur yëpp la ñu ngi koy fàttali bu baax a baax euh, xam naa ni nga ko waxee sëñ Saliou moom ku ne xam na ne liñ mën a tënk te fàttaliku ci moom mooy ku ne xam ne ne ab yarkat la woon. yarkat boo xam ne yaroon na képp ku jamonoonteel moo xam xa gone gu ko joxoon mu ñàkk ci ay loxoom la wala sax koo xam ne da ko da nga ko doon gis rek wala nga dégg ko moom danaan yar ci ci ci ci boppam waaye danaan yar ci xaal mooy ci gis ko waaye dégg ko rek dégg ay jikkoom rek yar nañu bare bari bar na ñoo xam ne lool xatle ba ba nekk nit ñu jub tegu ci siraatal mustaqim kon na kooku euh, ku mat a fàtteku la euh, ku mat a euh, jàngatal ak dundam la ndax lépp njariñu jur yëpp la. jëmm ju sell joojee de jëmm la woon joo xam ne man mii di wax ak yow moo ma teg ci poojam tuddee ma boppam ginnaaw bu loolu yooyu itam képp koo xam ne kii jaar nga fi ma mbala ma yar la bala moo soxla ci yow dara day dindi ci yow ak réer ba noppi def ci yow ak muñ def ci yaw am xel def ci yow ngor ginnaaw bu loolu yooyu itam nit la woon koo xam ne kii du woon nit ku niroog nit ñi. nit ku fu am baatin la woon te daa ko nëbb nag baatinam mosu cee nangoo génnee dara lees xam ci baatinam wala lu ca génn da koo rëcc waaye jubluwu ko woon kenn ku ne xam na ni itam mboolem kum fi jamonoonteel xam nga ne yàlla moom am na cëb cër waaye mosu ko nangoo wan kenn koo xam ne kii dana la wan boppam wala mën la ab cër képp koo xam ne kii jaar nga fi moom itam dana la yar bu lislaam dana def ci yow ngor dana def ci yow muñ te danu daa wax soo fi jógee foo yendu ñu yàkkamti nga gont dalaa dab waaye jëliwoo ko fii fi man loolu dañ ko daan wax toujours képp koo xam ne kii jógee nga fii fi man foo yendu ña nga yendool yàkkamti nga gont dalaa dab waaye jëliwoo ko fii fi man bin ci daara ji itam képp koo xam ne kii nekkoon nga ci daara ji ki nanguwut wut a jàng sax la gën a fonk gën koo ga ci mën a ngoo jàng ndax nit ko xamul mënta yor dara nit ku xamul itam mënta jaxasoo fetul daanaka sax nag daan ginnaaw ba loola wéy itam sëñ Saliou jikkoom kenn mënu la mu ca xam ndax ba moom mu yar nu nuy gune yu tuuti ndax man mii fi mu ne ah mbooloo mu ma nekk ña ca ëpp maa leen di mag ndax 1900 ba ma juddu ku ca juddu ba nëgëni si sax daanaka fii ma toll di wax daanaka sax am na ci ñoo xam ne ñii duñ ko man waaye képp koo xam kii nekkoon nga fi moom te nekk fi moom ci la nga war a nekk ci moom mbooloo moone ne doo ca des ginnaaw ndax da nga am xam-xam da nga amum xel da nga amum yar da nga am ay teggin ginnaaw bu loola wéyee itam képp koo xam kii ci nun ba mu nu yar waxtu wa mu nu yar nun toll ci di yar ku fa jóge lépp loo xam ne lii luñ la dénk ci ab cër la mën nga koo yor ndax ilimaane raatib di ko man wàllu administration ci àdduna itam lépp loo xam ne lii loola ci saw jàng mayul itam sam xel dana la ko may ma la ko mën a misaale rek yërmande sunu borom ndax képp koo xam ni kii gis na la yéene na la loo xam ne lii yéenewu ko sax boppam ndax nun ñii nekkoon ak moom di ay taalibeem day nun la gënoon a fonk ci njabootu boppam ci ni ko wëy juram waxe woon ndax dénkaane bu ko boo ko daan def képp ku mu daan dénk ku mu yar la daan doon sëñ Saaliw bokk na ci ay jikkoom itam képp ku mu yarul itam dana jaxasoog yow di maslaanteeg yow waaye la ci ku muy jaxasool dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ku mu yar ku mu yar nag fépp foo dem man nga faa ne ku mu yar képp koo xam ne kii dénk na la cër tam ah lo ca xew ndogalub sunu borom la waaye du loo jë jëlee fi moom lii bokk na ci la ma xam. Serigne Saliou li mu def si ñu bari na képp kuy ndaw nekk tuut tànk Serigne Saliou def na si yow dara nga xam ko ak nga ñàkk koo xam ndax dindal ma leen dimbali na ñëpp jaam ñëpp dimbali na leen waaw. li ma ci gën a marqué mooy ni mu daan dimbalee ndaw ñi. ndax dañuy woon jox leen ma ndaw ñi ma def si ñoom la sëñ Touba defoon sañ mag ña kon loolu moom ku ne xam na ko kon nag képp kuy ndaw nekk fii rek xam nga ni sëriñ sëriñ Saliou def na si yow dara ndax ku daan dimbali ndaw ñi amoon si ñoom yërmande daawul bëgg ko dóor gone waaw loolu daal laa xam ni moom ak dimbali nit ñi ngir liggéey jaamu yàlla liggéey leen di jaamu yàlla waaw. waaw dund sëriñ Saliou li ma ci marqué moom bari na. ndax euh, ci dëkk bi laa fi laa juddoo fi laa yoroo fi laa màggee fi laa jàngee fi laa defee lépp waaw te dafa amoon na sama maam wóolare daal wóolare taxul ma xam ko daal li liñ seqoon taxul ma xam ko waaye daal xam naa daal euh, seqoon nañ daal am na lu ñu seqoon daal ndax sama euh, waaw jukko yi moom jukko jukko yu baax maanaam nit la koo xam ni maanaam ku bëggoon lislaam la maa su ma gënoon régime daal mën naa wax ne maanaam jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yore woon waaw Sëñ de ñun moom lañ maaseel jamono moom lañ xam ci doomu Sëñ Tuubaa Sëñ Saliou moo nekkoon suñ lépp ba ba te ba pare yërmaane ji ak bëgg gi ñu bëggoon ak lépp loo xamante ni dafa war a ñëw gàllankoor ñu si suñ kaw moom moo koy aar ba loolu du egsi loolu moo tax moomu gën a marqué si moom. bis bu bis bu bàyyi ko de mu ma fekk fu ñuy wax alee alee siñ Fallou foofu la ma fekk mu nekk nag bis bu rëy si ñun bis boo xamante ni naxar lañu am bis boo xam ne duñ ko fàtte ba ba kara ñuy sàngoo suuf. biñ ko yëgee. sëñ Saliou moom ñëpp la fi nekkaloon maanaam gone yi ak mag ñi ak taalibe yi rawatina xale yi ndaw moo tax buñ koy war buñ koy defal anniversaire ñun ñëpp ñoo war a ànd. sant Serigne Touba sant sëñ Sidi Makhtar sant sëñ Saliou ndax sëñ Saliou njëriñ ñëpp la waaw ku xool xel xam ci ay jikkoom li ma gën a marqué mooy sëñ Saliou ku bëgg xale la li ma gën a marqué mooy sëñ Saliou ku bëri yërmande la ndax boo koy siyaare si sax mos nañuy siyaare sëñ Saliou toog ci naaj wi sëñ Saliou ci boppam daal di waa yobal ndaw ne ñooñu di may siyaare nan dem ci kër gi xaar ma ba ma génn maanaam nit ñi maanaam. raj-raj loo beeg yooyu daal di toog rek dëgër bopp mais sëñ Saliou bi mu génnee lim njëkk wax mooy li ma gën a metti ci jotaay bi mooy naaj bi ma leen fekk ngeen toog moo ma gën a metti ci jotaay bi ngeen toog di ma xaar su ma sañoon da ngeen di toog ci ker gi ba ma génn ngeen ziyaare kon loolu ci xeeti yërmale la waaw xel xom it marqué na ma ndax liggéey ba mu fa liggéey soññ na nit ñi ci liggéey ak jaamu yàlla ku dib taalibi rek war ngaa nangoo liggéey ndax comme que doomi Serigne Touba mooy liggéey ba réaliser xel xom kon kuy doomi Serigne Touba war ngaa nangoo liggéey Serigne Saliou waaw Serigne Saliou de moom li ma gën a ci moom mooy Serigne Saliou mooy Serigne Touba te ñun ay taalibe murit lañ te ñun amuñu kenn gëmuñu kenn ku dul Serigne Touba te Serigne Saliou giir gi fi nekk ci saayir liggéey na lu am solo ci yoonu murit sëriñ Saliou ñëpp xam nañ ne waaw Serigne Touba la daal donc Serigne Saliou moom vraiment. li ñu mën a wax sëñ Saliou daal bëri na xam nga sëñ Touba ko wax as saaliwu la zi yu kamiru amal ne waat li xaadatil ujoori wal ma saaliw bi tey ni wa jës bi wa indi saaliw donc li ñu mën a wax sëñ Saliou daal bëri na ah sëriñ xam nañu ne enseignant la woon jàngalekat la woon tey boo demee ci toolam yi nga dem ay xel xelkom nga dem ay njurul ay njàppandal ah nga xam nga xool sëñ Saliou li fi nekkee woon hmm? ñëpp xam nañu ne Serigne Saliou mën nañ ne moom moo nekk bon bi fii ne moo nekkoon la le sauveur universel Serigne Saliou moo nekkoon Serigne ñëpp ndax loolu du samay wax mais waxu Serigne Touba man li ma gën a marqué ci moom mooy euh, jaamu yàlla gi daan sant nit ñi euh, ñëpp euh, tuub dellu ci sëñ bi te xam ne sëñ bi rek ay sëñ bi ak. ak naal daan fi naal ba ci liggéeyu xelkom bi am na day dajale population bépp euh, di leen ñaax ci liggéey ak gëm seen bopp ak gëm sëñ bi te xam ne lool rek moo am solo jeexoon na lool moom daal. waaw waaw waaw waaw lépp ci dañ doon ñu delloo ci yàlla rek. Euh, di gën a yeesal liggéeyu sëñ bi. waaw di gën a yeesal liggéey sa te doon digal ñuy jàng xasida di wàcce kaamil eh, di kenn ku nekk koo gis def ko sa bopp jàpp ko ne sa bopp loolu daal doon na ko gën a sant nit ñi waaw kenn ku ne boo xëyee nga baalonte àq baalu sa mbokk jullit alhamdulilah loolu daal moom doon na ci gën a marqué moom guddik ñaar fukki fan ak juróom-ñett jàpp fajaruk ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre guddi gënu koo tiis ci yoonu murit waaye itam gënu koo tiis ci xoli taalibe yi ñu bëri jàppoon ni ne Serigne Saliou Mbacke du fi mës a jógee ba mukk ndax génération bu mujj bi xamuñu woon kenn ku dul Serigne Saliou Mbacke ak yërmande ja yar ba waaye itam bëgg ko doomu aadama ak kenn ku nekk ak na nga dundee bis bile Serigne Saliou Mbacke réew maa ngi lay jooy. sëriñ Saaliw Mbàkke maam booy àdduna sépp a ngi lay jooy waaye ndéem salallaahu alayhi wa salaam moo fi jóge ak ku tedd ki di sëriñ Tuubaa Séex Axmadu Bamba xaadim rasuul ñu bari ci taalibe yi ñaar ñi lañu jël teg ci seen kanam ngir mën a wéyal seen dund ci loolu sëriñ Saaliw Mbàkke man nag booba yaakaar naa fekkuma ci réew mi dafa fekk ma ma ma génn yaakaar naa waaw ah, xanaa yëg rek jullit ñi perte nañ lu rëy rëy rawatina nag yoonu murit ndax moom yàlla dajale woon ci moom nga xam ne mooy ki mujj njaboot Seexul Xadim te bokk ci ñi nga xam ne eh, Sëñ Tuubaa doon na ñaan ñaan xam ne manees mën naa manees naa wax ne jëmm ne ci moom mooy li mu doon ñaan naan eh, salli salaatan li tusaxi wal amal asaaliha lasi yu kamilu amal mel na ne bàyyi woon na xel ne moom ci jëmm ju tedd jooju ci la ay mébétam war war a war a mate ku mel noonu nag buñ ko ñàkkee ah, dana nekk lu rëy dana nekk dana nekk lu tiis ci muur yëpp moo tax bi ñu ko yëgee eh, metti woon na lool tiis na lool waaye nag bu buñ jëlloo ci fàttaliku waajuram teddu rek eh, mu daal waay fàtt moom moo fi toy ci ci noonu. bi mu fi bàyyi ko xanaa nu defee ne àdduna bi xam nañ ni sax sunu borom képp koo xam ne kii indi na la fi bu la fi jëlee it ku ko mën a remplacer ñëw fi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu fi jógee saaba yi dañ noon adduna tas ah Cheikh Ahmadou Bamba itam ba mu fi jógee taalibe yëpp jàppoon nañ ni ah adduna tas na waaye sunu boroom lu mu fi jëlee lu ne dana fa teg loo xam ne lii lu mën a wóotu loola la ba keroog ñuy fàtte loola di su ko fàtte nag ah waaye dana fa teg lees mën a jàpp. ñu nga fekk Ndakaaru sow waaye yëgoon nañ ko lool nag si lépp nag jëmm yeeg xol yeeg lépp yëgoon nañ ko daa fekkoon nag moom mu tëddoon di dallu waaye ban ma ko waxee daanaka moom jóge Touba jóge Dakar dox ñëw Touba rek laa bëggoon def lool waaw ndax amoon naa lu ma kii lool nag waaw waaye nag jógewu fi nag làqu na si bët yi waaye jóge fi jëmm yi ndax koo xamoon lim daan jàngale ak tey jii war ngaa xam ne Serigne Saliou jógewu fi du fi jóge waaw Serigne Saliou bi mu fi jóge waaw bi mu fi jógee nag boobu maa ngi Saint-Louis boobu maa ngi Saint-Louis maa ngi jàngale foofu daal maa ngi Saint-Louis waaw bi ma yëgee nouvelle bi nouvelle bi ni ma ko yëgee mooy dama tëdd fajar yooyu ki ma nekkaloon moom moo moo moom moo yee wax ma wax ma xibaar bi waaye bi ma ko waxee tim maanaam xawoon na ma jaaxal daal dama ne woon daal loolu wóoru ma nekk daal. ndax demoon naa ba benn instant ma yàkkoon si Saliou du du fi jóge daal waaw nekk na koo xam ne du fi ku fi jóge moo xawoon ma marqué daal marqué woon na ma loolu daal parce que ak dundam dafa am lu def ci man daal waaw même jeunesse su Sénégal bépp maanaam dafa am lu def ci ñoom ba tax na yaakaar nañ ne daal moom du ko fi jóge daal du ko fi daal waaw. ah bokk na maa moom loo xam ne moom bokk nañ ab reer ma moom waaw reer moom bokk nañ waaw des fois damay toog sa jataay moo faral di toog sax damay wax naan maanaam dama koy faral di ko nettali waaw waaw lu may tiitaroo daal waaw ndax bokk nañu reer waaw fi mu ne dama fu ma mën dem daal dama am naa yaakaar ci sama dundug fii ak dundug fële am naa ci yaakaar ndax bokk ak sëñ Saliou reer moom yombul te de bokk nañ ko maa moom eh, xanaa nag am na xar torop ñëpp bëgg a topp guddi gi ndax ñëw ndaxte ñun bi ñu ko yëg guddi moo jot ñëpp bëgg a topp guddi gi ñëw nit ñu bari dee moo leen gënal dund ci bis boobu noonu ndaxte moom lañu xam mooy sunu lépp dañoo féete woon ci côté bépp loolu moo tax. ñu bëri dañoo jàppoon ne xam waaw ndaxte xam nga lan moo tax loolu moom daf ñoo jël uuf ñi ci boppam bés bu yàlla sàkk da muy wax ne bés bu yàlla sàkk da muy wane ne moom du fi mas a jógee ci àddina gëm ñooñu loolu loolu nag moo tax bi mu fi jógee mu naqari ñu marqué ñu bett ñu trop nag.

Abdoulaye Wade sax bi muy ñëw ci jumaa ji fa la fekk waaye maanaam xeexoo boobu daal mooy xeexoo boo nga xam ne maanaam métti na mboolem kuy murit ndax Sénégal ñàkk na murit yi ñàkk nañ képp kuy jullit rek ñàkk nga waaw kon loolu wax dëgg yàlla marqué na ma bu baax. waaye li ma gën a marqué nag ci mooy biñ ne ma sëriñ Taaliw làqu na loolu nag bokk na ci loo xam ne daf na lu bari ci man waaw biñ ne ma sëriñ na génn àdduna. Euh, wax dëgg yàlla keroog moom xawoon naa yóbbu na ma ci dimension yi doy waar moment yooyu ma fekk dakaar ma nekk ak sama soxna suma benn frère woo ma 3 heures du matin 4 heures ne ma sëriñ bi dafa làqu mënu maa gëm loolu. keroog bu may génn ci kër gi di jëm si tuubaa sama poos 2000 francs moo ci newoon ma jël ko sànni ko soxna si génn dox ba Padois taxaw ne Touba laa jëm benn particulier ñoo taxaw yóbbu ma ba tuubaa waaw loolu am solo. non boobu marqué na ma loolu ndax boobu mi ma fekk ci may euh, nekk ci daara ji euh, sëriñ xaarim docteur mu sëñ Modou Awa Balla euh, sëtum maam Thierno Birahim man moo ma yar ci daara ji laa nekkoon waaye boobu mi ngi ma fekk ci ma nekkoon ci wetu sëñ bi noonu na bi mu génnee liggéey bi mu wàccee àdduna bi mu génnee àdduna boobu xawoon nañu tiis lool lool lool lool xawoon naa def ci ñun lu bare bare bare ba tax na ñoo ngi koy euh, gën a ñaanal euh, yàlla seddal euh, ci kawam barke borom Tuubaa alhamdulilah moom daal moom daal bi mu génnee suñu xel su xol jeexoon na lool